waaw maa ngi sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah di nuyu Abdoulaye Diop ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeurs yi déglu RFM 94 point 0. yaakaar naa ni euh, vous avez passé un très bon week-end. El Hadj nag euh, fi ñu toll nii. alhamdulilah El Hadj réew mi ci week bi ñu génn. bari na coow <laughs> ak ak ak ak. xaw ma naka laa ko mën a woowee waaye pour man bu dee dama dégg olof bu baax a baax. ñàkk baalaate laa koy wax. yow week-end bi nga wax coow li kay nag moom daf mel ni cat la ci ñun léegi. du week-end kese dee baax waaw dañuy wax rek. <laughs> mais âge yoo xam ne war nañ koo bàyyi mu sedd war nañ ko rombal wala ñu daal di koy def ci suuf lu kenn dul yëg léegi dañ koy yëgal ca kaw ba pare di ci boole di ci teg lu metti mhm. waaw euh, jéggal moom xam nga gars yi souvent bala ngay xam jéggal mu am solo nga nga nga faatu ëllëg lan nga yaakaar du sa jéggalu borom. jéggal rek wala wala danga ngaa aay aay goo xam ne yow julli nga fi julli gu fi sàng bu tedd bi julliwul. wala mbaax nga fi mbaax gu bu baaxul. waaw ah, bu kon d'ailleurs ñu profité ci déjà. Mhm. massa wu baax su ñu yu 7TV. yu tv 7TV ndax. Euh, Adja Astu xawma ko mais damay saluer humilité bi mu boole ci mbir yi ndax nag nit ku ne métier ba ngay liggéeyee ca ngay gaañoo. ci ngay juume. waaw mhm. xam nga menuisier ba buy tëccu. Mhm. ak marto ba doon. chauffeur ak seen i wota. maar day im si yàlla nay yàlla nay néew loolu mbaa mu am bañ am di tuume. nga naan accident. donc nit ku ne la ngay liggéey ci ngay accidenté. waaw donc bu amee nag nga ñëw jéggalu loolu vraiment voilà quoi miinuma ko miin naa directrice am. Mhm. soxna Maimouna mun a ok nit ñi xam nañ ko. ci mhm. past Pastef gi. ah ci dogu gi ci jàmbaar gi ci jigéen xam nga jigéen ju mat góor. dëgg la donc maintenant njuumte la rek. ñu ne âge ku liggéey fukki at nag moom bu juumee benn yoon war nañ ko baal. ah mënta ñàkk de juumte la. jéggulu mhm. daal wax dëgg yàlla foofu danga nga dul gis. Mhm. da nga gis lan ngay taxawal ci diggante bi. léegi bi ma dajee ak avocat maître Moussa saax maa ngi koy wax bi mbir mi amee mënoon na ñëw di di di di di di taal ay mbaa mu naan article nangam sangam. mais mhm. gis nga na mu waxee keroog. bi mu génnee brigade de recherche. cest dire gis nga nit da ngay responsable. njuumte am ñu wax waxi responsable daal di fay mbir mi jàll ci leneen. parce que les enjeux sont ailleurs réew mi fi mu toll nii. xam nga ñun li ñuy yootu ak nanuy doxee dafa wuute lool xam nga luy émergence waaye réew mu bëgg émerger mais est-ce que gis na ni ñuy doxee ay waxi picc yi. ci mm. ci internet gi. Mm. xuloo yi ci mbedd mi. lu neex waaye mm-hmm. doxe mm-hmm. circulation bi saa ñun noonu nu mel ñun. ak émergence gi ñu bëgg dafa dafa am différence àndul sa ñu wax ni contradiction mais en tout cas wuute gu rëy am na ci il faut ñu dabu xam mm-hmm. ban moo ci dabu moroom nag mais intolérance bi nga junj sànq daal jéggi na dayoo waaw nit bu juumee day jéggalu Euh, marché marché HLM la xaw ban marché nga gis fan yi ñuy wane ci réseaux sociaux yi. ay jigéen jigéen ñu sàcc. ñu sàcc xam nga du ma fi taxaw défendre benn sàcc. benn mm-hmm. sàcc nag. Mm-hmm. bu ndaw baag bu diggu doom ak bu mag ba mais jàpp nga sàcc yóbbu ko police. surtout ci jigéen. de surcroît jigéen nga nga nga nga daal di koy summi. Mm-hmm. xam nga dem mbir topp ko ba mu sës moo baaxul. ak en tout chose mbir nga topp ko ba mu sës ak ñàkk kersa la du leneen da am loo baax. mais est-ce que tamit ñooñu kenn gaañu leen euh, sàcc leen sàccaat leen sàccati leen ba ñuy bëgg a dee. xam naa non loolu kay kenn waxaale wu ko waaye yow do yow am réew état moo yor justice du keneen. mooy faj mhm. bu ñu la sàccoon ni milliard. waroo fajal état moo yor mhm, justice. Mhm, loolu moom bu day leer xam nga nag. wax day leer ba pare ñu jàll ci les. am réew day am ay jën yu ko téye pare ñu jàll ci les tant que clarifié wuñ débat bi à ce dem fenn kenn warul àtteel sa bopp du kenn du ministre du du général. du commerçant lu ñu la mën a sàcc nag ak lu ñu la mën a def état moo yor loolu ñu jubboo ci benn yoon mu mu des àtte bi yóbbu ko jébbal ko takk der yi. Mhm. Mhm. ensuite nag te mu dira waaw ne justice di def liggéeyam yooyu yëpp ay ay amélioration rek parce que loo gis rek fànn bu ne war nañ ko améliorer réew mi moom gaa lu ne la ñu war a améliorer. d'ailleurs sax comme on dit rek ñun bu ñuy def ay élection ak di alternance ak di jàll ci yeneen bu fekkee mënuñu réussir ces genres de rupture jaratul sax ñu élection nañ bàyyi rek li fi ne mu dem ba keroog àddunay tukki. il faut que ñu egg ci yenn rupture fondamentale yi pour mën a xam ne ñun nii ñu ngi évoluer bay daal loo ci mën a dégg ak njéggal moom comme moom lañ yaakaar fii yaakaar gu fële nañuy jéggalante di tànqamlu di bàyyi taaw yi wax wax kenn du ko ñoddi histoire mm-hmm, mm-hmm. kenn du ko ñoddi di ko xamb di xamb ay wax ah loolaa mbir kenn du ko ñoddi de léeg mu ñoddee ko dugg indi yoo xamante ni parce que boo seetloo euh, ki ki faat euh, Binta Camara ca Tamba. Mhm. moo indi lii lépp waaw. Ah. coow li nga fi dégg yëpp weekend bi ngay wax noonu. paate gi moo indi manifestation yi contre la violence faite au femmes indi ay waxi viol ba tudd waaso ba tudd mhm. leneen c'est-à-dire mhm. ay moo dul yam ci bopp borom. aba aw ay moo baax <laughs> amul benn ay bu am conséquence bu baax amul. dëgg la lu bon rek la jur. dëgg la en tout cas mu ngi noonu euh, wax jaleer na donc xam naa ni. du ma fi yàgg euh, aba show j'aime waaw waaw waaw ñun moom. Ah, ah, jàmm rek yow ngay woote. ci kaf ak ree rek. ak di encaissé man ta ñàkk naa la ay grand théâtre ngay yooyu da ngay jaayee billet léegi <laughs> as loolu nag ah, as gis nga lool lu yàgg la <laughs> dañ def foofu ca CICES eh, hmm. ba ba dootul xaj ci salle ba ñu waajaloon ko daaw yóbbu ko grand ak eh, la télévision Futurs Médias moo tax tey hmm. mu gën a am coow waaye loolu lu ñu waajoon daaw la donc daal âge man ci kaf ree laa nekk ak ci jàmm ak salaam am na ci ñoo xam ne seen i mbokk ak seen i collègue hmm. war nañ leen wutal billet ñu ñëw waaw ndax ñu reyee sax benn benn après midi ñu reyee. <laughs> très important bàyyi ay wi. en tout cas c'est très important. ay baaxul gis nga gis nga am réew bu ñu ci nekkee. Hmm. yi di liggéey lu bari stress bi bari ci réew mi dañuy xool nu ñu fajee stress bi man daal âge fu fu. foo xam ni patron yee ko yóbbee nii am kuy xafa waaw dans toutes les entreprises du Sénégal hmm. gars yi jàmbat patron ci biir de hmm? ay patron yi déedéet xam nga xam nga xam nga patron ak njiit de Sénégal <laughs> boo fi bëggee jëlee stress rek woowal patron yi wax ak jom liggéeykat yi dangay ngay ak ñoom laay dëgg la duñu dañuy tappale liggéey bi léeg-léeg ñu ci bari dañuy tappale kooku nangu nañ suñu wàll mm. patron itam duñu ay malaaka nanu féexal nit ñi waaw ki nga xam ne yow mënoo def liggéeyam mm-hmm. xaalis da nga am investir wala sa xaalis moo la jey dëgg la de bu doon yow rek la de bu doon yow kese doon yegg foofu mu egg dëgg la fu mu yegg dëgg la de naa tabax étage luye ko ni gars yi def léegi gars yi bu gën a yomb mooy dañuy luyaas rek léegi. mu muwal rek jëm kaw rek nga luye. immobilier. immobilier gars ko jox ñu <laughs> immobilier. xam naan dama lay mujj bàyyi ak askan wi nga daal di yeggaleeg ñoom laata xalaas di ñëw ak émission bu mag boobu nga xam ni moo dëggantaan. Mm-hmm. ma bàyyi la nga daal di doxal waaye man dama euh, sama xol bi dafa xaw a tey daal sama xol bi xaw la neex. Mm-hmm. waaw ci weeru koor wi ñu dugg nii muy waaj jeex. waaw man damaa bëgg koor mm-hmm. ndax waaw <laughs> yaa ñime xiif doom yaa ngi ree de <laughs> yaa ñime xiif yow suñu borom bi la sàkk eh. wutal ko àpp ne buy bu weer wa jeexee nga def la ca des nga mën a xéewlu yow da nga bugg ko bëggoon damay def semblant am na loo ci wut damay def semblant <laughs> <laughs>